di sene ko Ousmane Sonko ma mu doon maasa it journal bi xamal nañu ne ginnaaw suba ci àjjuma ji ca la ñu nar a dindi immunité parlementaire am dimbalaanum kiir lay ma mu amee ci assemblée nationale ngir mu mën a dem janoo ji ak yoon conférence des présidents bu assemblée nationale ñooy daje tey ji ngir jañax Ousmane Sonko xàll yoon wi ñu war a jaar ba dindi immunité parlementaire am ay àndandoom ak i farandoom yi ñu téye woon ci yoon yéenekaay bi nee nañu yoon pareegul ci ñoom ba léegi ne Souley Biram Diop ak Abbas Fall mandat dépôt nañu leen ba ca kaso ba fa la ñu fanaan démb jabari Souley Biram Diop di Patricia Mariam Ngaldou moom bàyyi nañu ko mu dem tey ci contrôle judiciaire ca la nekk l'observateur ne ko du moom la ak Fatima Mbeng Dayiru Thiam ak Bawar Dia coowal massage li indi lii lépp Vox Populi nee nañu président Macky Sall mi ci Ousmane Sonko ak i gaayam di tuuma ñoo nekk ci ginnaaw di def seen i kompolo ngir seet nañu ko sànke président Macky Sall nee na wax joojee nañu ko ca génne keccet ko ci ba mu set wecc ndax moom am na yeneen i yitte am na leneen lu gën doon farata lu dul taxaw naan mi ngi kompolote ci yu ñàkk fayda yi lëkkute janañu Macky Sall mi ngi moytu coowal massage yi waaye Ousmane Sonko moom génniwu ko ci nee na Macky Sall munoo convaincre benn doomu Sénégal te ñëpp xam nañu ne benn compétence rek nga am mu di di kompolo say adversaire politique ngir sànk leen le témoigné nañu kompolo gi waa parti Pastef di wax ci mbir Ousmane Sonko ak Adji Sarr ba di ca taqal sàll Sall Macky Sall génnee na ca boppam waaye Ousmane Sonko mën ko ciy gën di dugal ne démb lañu ko dégg ma Macky Sall ci waxtaan wu mu doon def ak rajo tubaab bii di RFI rajo France Internationale mu ne moom am na yeneen yitte yu gën doon farata leneen lu mu mën a lijjanti lu bokkut ak di kompolo ci ay caaxaan waaye Ousmane Sonko xaati goñ ne ci li ñu koy jiñ ak di ko ko waxal ci réew mi boobee ba léegi loxob Macky Sall génnu ci te bëgg koo sànk ci wàllu politique rek moo tax mu koy def suur soi nañu kurpaña tàmbali na tàkk ci diggante Macky Sall ak Ousmane Sonko réew mi quotidien mel ne ku naan ko romb nañu ay kurpañ ci mortal combat dëgg ci la nekk combat beneen bu ñu nekk boobee ba léegi mu di jële fi mbas mi di coronavirus bi yéene kaay yu bari ñu xëy ndool xëy nañu baaxee fa yëf toll bokk ci sud quotidien mi ñu wax ne door nañu démb campagne bi jëm ci ñàkk nit ñi ngir aar leen ci coronavirus bi sud na yoon wi Abdoulaye moom wane na yoon wi jiitu na président Macky Sall ci ñàkku gi ngir aaru tas gi Les Échos bind ci xëtam mu njëkk ne Diouf Sarr soobu na ci yëf yi Macky moom ma ngay day naagal ñàkku gi ñu tàmbali démb ci réew mi ngir aar askan wi ci mbas mi enquête yéene ngelawal yaakaar luy upp la ko tuddee ku làkk mburu tuddub dëkk coow li jëm ci orientation bachelier yu ministre de l'enseignement supérieur di Cheikh Omar Anne xëy na di leerale ci am Vox Populi nañu cib janoo bu mu doon séq ak taskatu xabaar yi démb li ca demande ak juróom-ñaar yoo xam ne dañoo forkoloo ndax seeni borom dañoo yeex a fay seeni frais d'inscription am na it yeneen ñaar fukki bachelier ak ñeent yoo xam ne ñoo dem bëccee biir bàyyil seen bopp Cheikh Omar bu weesoo juróomi téeméeri bachelier yeneen ñoom bitim réew la ñu dem jàngee ji fa ñi ñu orienté gul moo di ñi amee baccalauréat arabe ñoo ngi toll ci junni ak juróom-ñaar fukk ak ñeent te ñoo ngi liggéey bu baax a baax ci seeni dossier ngir seet leen orienté mu ne moo di ca université Cheikh Ahmadou Bamba ba ca Touba ñi fi demoon Touba a tawaaf ca jumay Touba ja l'observateur nee nañu ñooñee ñi leen jiite ñu waa ji leen rungoon yóbbu ñu naan ko jabang moom ak ñeent ci ay taalibeem démb ci lañ leen mandat dépôt ba jël leen yóbbu kaso ki ñu ne mooy seen wasila ñoom ñëpp l'observateur ne nañu moom ñi ngi koy wër wër gu mitti jamono ba jël ab mandat dare gàll ci ndoddam nooxoo ray la dëjël la saraxal la ba noppi ñëw di la jaale loolee moom la waa ji di Mouhamadou Cissé def ndaw si di Soukeyna Diallo ubbi l'observateur Mouhamadou Cissé daf doon bëggante ak Soukeyna Diallo ba ëmbal ko Soukeyna Diallo l'observateur nañu jenn jigéen la ju yore boutique buy jaay ay bagages ci jigéen waa ji di Mouhamadou Cissé teg ko dil ànd ak beneen waay bu ñu naan Youssouf kamara ñu dem dajji butigu ndaw si jël fa valeur ñaari million bu manqué ñeen fukki junni maanaam un million huit cent mille l'observateur nañu li ci gën a yéeme moo di moom Mouhamadou Cissé bi mu defee li muy def ba noppi moo gunge ndaw si su koy na jàllo gendarmerie ngir mu porté ji plainte comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS seen cuuraay raktak bi rey yooyu seen gamme Opalia ak seen savon de Marseille créole ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi jërëjëf Mamadou Mohamed ñu ngi leen di gërëm yéen it mbokk yi xibaar yeeg RFM 4 avril ren du am défilé loolu l'armée benn dogalee ginnaaw bi nga xamante ni euh, ñu ngi wéy di wékku rek ci ay mesures barrières euh, di ay euh, dogal ngir moytu gi ñeel jàngoroy coronavirus. préfet Dakar it loolu la tontu waa Pastef ak FRAPP France dégage yi namoon ab dox tey jile ci wàllu yooyu mesure waral tere gi ñeel seen marche boobee ñu namoon ñoom yaay yooyu kuréel waroon jógee Colobane wutali rond point RTS radio télévision bu Sénégal bu samedi it am na mbootaay geneen gu fas yéene amal ab dox muy